fii maa ngi koy seereloo yi sama taalibe yii man ak teg d'accord laa ab rakk la toll nii. Gueule Tapée ak mboolem njaboot ñoo ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp te di nuyu di ziar sa njaboot gii na nga xam ne amoo lu dul ñoom ñoom tamit amul lu dul ñoom loolu rek moo wér ànd ku ca dëggu nekkee bëggante nekk ca yéenante nekk ca lu ne xañ na ca te loolu ku déglu say taali bi déglu la nga wax xam ne loolu am na sa diggante yàlla yàlla saxal ko ñun nag ñu ñëw. ci ñaar di jiitu mooy nekk doomu gox bi doomu réew mi doomu Malicounda yàlla nattoo ñu ne ñun ñoo ko jiite waaye am ay kilifa yu mag yoo xam ne yi nag ginnaaw bañ jiitee ba pare dañoo ñëwaat mën a toppaat seen ginnaaw muy ko mel ni yow Malicounda nekk gox bu soxla ñu dimbale ko nga am fi taxawaay bu rafet ndax comme ni nga ko waxee daaw aménagé fii am réew moo xam ne nii lépp rafet na te xaaru ci état loo ca mën ba pare taxawu askan bi kon boog buñ nee ñun ñoo bokk gox bi ñu jiital ma loolu dañ gox bi yépp da la ciy jaajëfal te di la sagootal ndax bis bu toll nii wala bu toll nii jóge fu ne ci adduna bi ñëw daje fii lii sakk la ci gox yàlla ba yàgg te yàlla sax la ca topp muy yàlla boole ñoo président Macky Sall nga wax ko ci cérémonie officielle ba ne sa wëllëre ndax day déplacé na ay autorités yu mag ñu ñëw fekk si bis bi te ñun kat ginnaaw bi ñu fi nekkalee askanu Malicounda ba pare président Macky Sall bi lañ fi nekkal ci gox bi ñu yaakaar sa ñaan teg ci moom ndax xam nañ ne yeneen ci réew mi rëy na coonoom ci réew mi tamit rëy na waaye loolu doomu doyul. ndax bëgg ak jëf kese doyul ndax mën ngaa bëgg te yàlla du matal sa bëgg ga mën ngaa jëf te yàlla du matal sa jëf ga kon boo bëgg ak jëf da di waree fu jaam rek waaye nag yàlla mooy sottal bu sëñ Saliou ne maay yow yaay man wax dëgg yàlla bu ñëw ci yow nag te soxla sa jëf ak sa yéene yàlla ànd ja dina tàllal suñu loxo wax nga ñaanal président Macky Sall te jàppale ngir yéene jot sa jëm am ci réew mi mu mottali ko ba réew mi yëpp yi rek la ko mbokk yi ñëpp xam nañ ko foo wootee exactement nga fa su ma ko yàlla mayee Thiès Touba fii ak Dakar fu ne parce que kat man say wax dama ci bànneex dama ci jëlee lu bari ndax day dugg ci sama xol gëm sa bi kàddu yi mënut a gudd rek la ay kàddu yi sant ni nga taxawoo gox bi ni nga taxawoo aska bi ni nga taxawoo réew mi ci yar seeni doom teg leen ci yoonu njub ak yoonu am jom ak yoonu liggéey di la jaajëfal ci loolu la sant ci loolu. ci ab bu mel ni sunu maire bii di gone bu tuuti am yaa bii bu ndax boo doon bëri tey Sénégal ba heure yi cinq heures vingt boo doon bëri tey réew mi fu ñuy sant Serigne nga dem man faa fekk ab bu fa réegoo ba muy waxtu di dégg